ngi nii ñu ngi dëgmal ñaareeli élection présidentielle yoo xam ne parti socialiste du ci bokk wax nga bi mujj bi 2019 bokkul dafa euh, soutenir candidature Macky Sall euh, bi aussi mu ngi fas yéene soutenir Amadou baax pour un parti socialiste boo xam ne euh, daanaka doyoom dayoom kenn mënatu ko naatable est-ce que du du défaite de ceux-là qui ont le parti actuellement mu mel ni da mujjee ak puso bi mu ree seen loxo. waaw question question bi nga posé question bu bu am solo la mais nañu jàpp rek ni xam nga soo àndee ak ak nit. Mhm. ngeen sanc coalition. te ñu ngi sanc coalition depuis 2012 ci deuxième tour élection présidentielle ñun euh, Sénégal rek moo ñu ñor. Mhm. parce que comme ni ko waxee sànq te ma euh, féddali ko. mooy que ni xam nga soo amee parti nga am ci ay kàngam yu mot sëkk ñu le président Léopold Sédar Senghor le président Abdou Diouf ñoo xam ne ñoom ñaar ñëpp jiite nañu état Sénégal te ku nekk ci ñoom aussi am jéego yu mat sëkk yoo xam ne def nañ ko ci réew mi. Mhm. loolu soo ko amee yàlla def ñu dem opposition en mille opposition boo xam ne nii opposition républicaine mais opposition boo xam ne dañu taxaw ci suñu ay position loolu aussi di ci gërëm bu baax ndem si yàlla si Ousmane Tanor Dieng xam def na ci liggéey bu am solo. bii PA Sonaam mais bii 2012 euh, euh, euh, ñu dem mu nekkoon candidat yàlla def jàlluñu te ñu jëloon engagement que képp ku nekk ak ñun ci opposition bi dem deuxième tour yow la jàppale. bi loolu amee ñu ànd ak ci président Macky Sall ñu réew mi fal ko donc loolu. engagement lañ jëloon ci tabax benn bokk yaakaar donc président Macky Sall comme on le sait très bien notre constitution président bu nekk am nga droit en deux mandats donc deuxième mandat am boobu en toute logique ngeen ñu ci benn bokk yaakaar te dañu dañu waxoon ni luy yàqu ci benn bokk yaakaar bu jógee ci ñun donc c'est en toute logique ñu ñu ànd ak moom pour que ñu falaat ko pour son deuxième mandat mm-hmm. loolu la ñu def mais bii euh, euh, bii nii ci euh, élection yi di ñëw effectivement engagement boobu ñu jëloon. moo moo moo ñu tënk topp ñu ci loo xam ne nii effectivement on aurait pu le parti socialiste aurait pu effectivement avoir son propre candidat.